yéen jigéen ñi la ma leen waxoon keroog ca mbaarum daal ko bés ne leen doole ji mi ngi ci yéen nekkul ci man nekkul ci keneen tey ji macha allah man ngeen mil bu ngeen jaayante ci seen biir rek c'est un grand marché kenn ku ci yéen ci kër la bàyyi ko bàyyi borom kër bàyyi mag bàyyi rak bàyyi ay cousin bàyyi ay cousine bàyyi ay njaboot kon c'est des milliers c'est des milliers de personnes ñoom nekk seen ginnaaw li am solo mooy ngeen am conscience ci force boobu ngeen di présenté tey jox nañ leen ti jumtukaay boo xam ne tàggat nañ leen li ki des nag yéen yéen a ki des kenn ku ne ci yéen groupement bu nekk bu amee cinquante mille francs mën na commencer son business wute leen kër wala ma sa équipé na kër gi di leen préparer benn foire defe leen coopérative boo xam ne structuré nañ ko def na formation en leadership formation en organisation kon jàpp naa ne ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale seen jaan wàcc na kon nag yéen na ngeen xam ne yéen a ngi des nag li ñaan mooy nag ngeen jël seen responsabilité am na suivi dem leen ngeen liggéey am ngeen matériel commencé liggéey commencé jaay li fi nekk nii bu soobee yàlla dinañ ko jënd ba mu jeex tàkk mais ngeen commencé produire di stocké en vue du grand magal de Touba. ba bu ñu fa àggee lépp lu ñu leen laaj di ko am man ko joxe ba ca topp ñu ngi leen di wutal ay marché à l'extérieur maam xarit keroog waxoon na ko elle a beaucoup de contacts partout dans le monde loolu bu gën ci wéyee seen produit yi man dem naa ba New York ak fu ne ci àdduna si mais la ma gis ñu ko fay jaay mu jóge Sénégal sellewut ni nga xam ne seen produit noonu sell kon bu fa demee bu ngeen ko jaayee dafay jar kon loolu lépp foog naan ay perspectives la yoo ngeen xam ne ay yoon ay xàll mu ubbi ko ci seen kanam la ko des nag ngeen def ci fulla def ci fayda def ci jom téye te xam ne au kon ñuy jël dara ngeen ko may yéen ngeen xam ne ngeen defal seen bopp loolu mooy li nga xam ne mooy li baax loolu mooy li gën ci yéen. monsieur le maire wax na ko léegi bi ngeen di ñëw fii kenn transporté wu leen ci ay kaar benn kaar nekkul. kenn ku nekk ci yéen moo paase boppam moo indi boppam mu yóbbaat boppam kenn ku nekk ci yéen moo xotti mu mi nga xam ne moo ko indi fii kenn ku nekk ci yéen moo jël ñaari téeméeram ci alalam adhéré ko ci coopérative ça veut dire quoi que am ngeen motivation am ngeen engagement bëgg ngeen a liggéey tàggat nañ leen xare ngaa fi on va vous accompagner pour que vous puissiez des miracles ba àdduna sépp xam ne jigéen Tuubaa yënguñ ak jënd jigéen ci àdduna sépp on sera à vos côtés on sera à vos côtés incha allah te li ngeen def barke moo ci njëkk ndax dañ koo def ci kilifteef dañoo def ci sëriñ bi mu jox ci ndigal moo tax mu sañ a fii ci biir kër sëriñ Tuubaa di ko fi defee barke boobu nag nga xam ne moo ko lay tay mooy àggale lépp sëriñ Abdou Lahad mi ngi nii ñu dénk ko dëkk bi fu mu toog mel na ne sëñ Mountakha moo fa toog fu mu toog ku ne xam ne sëriñ Sidi Abdoulaye xam moo fa toog sëñ Ousmane ne la kon yebal sëriñ Tuubaa képp mel na ñu biir kon nag bu leen am dara lu ngeen di tiit wala lu ngeen di ragal xuus leen ngeen jàll bu soobu yàlla di ngeen àgg fi nga jëm ñu ngi seen kanam ñu nga xam ne mooy li am solo tey sama xol fees na am naa mbégte ci yéen neewoon naa leen li nga xam ne mooy sama fierté mooy yéen ngeen réussir yéen ngeen réussir loolu mooy sama fierté ngeen dem ba soxlaatu leen man ma di leen accompagner wan ma wala man ma di leen dimbali loolu mooy sama fierté may daje ak yéen ci mbedd yi ci marché yi ak partout ngeen na ak ah, sëñ bi de ma may tàmbali de ñëwoon naa fa nangam nangam loolu man mooy nekk sama fierté. mais jàpp teewuñ leen ngir ngeen di topp ci suñu ginaaw guddi ak bëccëg di am lu ngeen ñaan wala nga am lu ngeen dagaan loolu amul solo baaxul ci seen tubaab di loolu am ak dignité donc seen dignité boobu nag mosu leen koo ñàkk waaye gën leen ko fonk gën leen ko téye xam ne yéen a yor doole ji yéen a yéen a moom yëf yi et ñoom elle parle d'autonomisation des femmes fexe ba ngeen man manal seen bopp mën a dem ak seen bopp jàppale seen njaboot jàppale seen i borom kër téye joxe seen participation ci li nga xamante ni mooy développement réew mi ndax yoon li nga xam ne le président la bi xal na ko moo di réew mi ci diir bu gàtt benn réew ci àdduna si duñ ko raw te loolu ñu te loolu mënuñu ko tant jigéen ñi nga xam ne ñooy la plus grande moitié de la population participer wuñ au développement du Sénégal jigéen ñi mënuñu toog ci kër yi rek di togg ak yàq bi ñu liggéey loolu bu ñu ko defee réew mi di jëm ci kanam moo tax lii ñu sóobu ci ndax ñun luy jëmal réew mi ci kanam mooy ñu ñor loolu lépp loo xam ne aussi mooy taxawal di dëgëral di suuxat la politique du président la république loolu ci la ñuy xëy ci la ñuy gont ci lii aussi mooy dëpp ak li nga xam ne mooy li sëriñ bëgg kon daal am nañu mbégte ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm maa ngi sant mboolem invité yi fi nekk yëpp mboolem invité yëpp maa ngi leen di seen yéen ñëpp mënumaa tudd ay tur ndax ñi fi nekk ñëpp ay kilifa waaye xam leen ne gis naa leen seen liggéey rafet seen taxawaay rafet na lii ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp bu jógee ci lii mois d'août incha allah quel soit le résultat des élections parce que ça c'est pas lié des élections ça aussi il faut le dire et on est catégorique là soit résultat des élections à du 15 dina commencé beneen cohorte de formation de 500 personnes yaatalaat ko boole ci ñëpp dugal ci ñëpp que su bëggee dem ci faw jigéen ñi ak ndaw ñi dem ci émergence pour émergence mun a am te lii ma visité fii tey muy liggéey bu rafet bi nga xam ne jigéen ñi def nañ ko ànd ci ak ONU jàpp naa ne wane na yoon kon boog am naa mbégte lool teew fii te su ma demee dinaa mën am lu ma mën a nettali président la république nettali ko sama collègue des conseils des ministres nettali ko aussi suma xarit ministre de la femme bi nga xam ni moo boot jigéen lii nag dafa nekk loo xam ne nii mooy tungoom suñu développement réew président de la république di noppi di ñu wax te faw programme yi nga xam ne ñu ngi koy déroulé ñu beral ci loxo jigéen man suñu borom dogal mu féete njaareem région de Diourbel mun naa seede ne yàgg na ma wax faw nga baral sa loxo yaatal sa loxo jëm ci jigéen ñi jëm ci ndaw ñi ci diwaanu Touba loolu mun naa ko seede loolu moo tax bi Serigne Mountakha Bachir yëkkatee université bu mag bii muy tabax mu ñëw fii ñu ànd fa ñu xool ko mu ne jàpp naa ne fii ci université bi yeyoon mu am centre de formation bu mag boo xam ne jigéen ñi ak ndaw ñi dinañ fa mën a jaay mu xool ko ci boppam. saytu ko jox ma ci ndigal ñu jël lu toll ci ñeenti milliards dugal ko ci centre bi ñu ngi koy tabax ci biir université bi loolu nag li ko sabab booy pour que jigéen ñi nekk fii Touba mën a am activité mën a am formation mais surtout mën a am activité entrepreneuriale buy tax ñu mën am liggéey mais di ci surtout di ci am askan kon li ngeen def fii tey buñ ko sofee ci loolu jàpp naa ne dina mën a jur njëriñ. kon boog gàcce ngaalaama jigéenu Touba gàcce ngaalaama seen parrain sëñ Abdoulaye Gaynde Fatma ci gis-gis bi ci vision bi mais aussi ci taxawaay bi moom dugal ci cant googu ONU ci taxawaay bi nga xam ni am nañ madame la directrice merci beaucoup au du président la République au nom de tout le du Sénégal au nom du peuple merci à ONIFAM pour cet de qualité su ma waxee accompagnement de qualité am na lu ma ci xam yàlla dogal na ay at lépp ñaar fukki at ma yëngu ci wàllu formation góor ak jigéen mag ak ndaw waaye li ma gis fii tey jàpp naa ne mooy exemple le plus abouti boo xam ne nii buñ ci tegee suñu loxo tuuti rek mu am njëriñ bu yaatoo yaatu ñaareelu pàcc waxtaan bi foofu laa ko bëgg a bu njëkk dañ daan gis jigéen ñu bëri ñu tàggat leen former leen mais suñu paree dañuy jël seen attestation bi de wekk seen kër dem mais lii ngeen def nii te directeur expliqué ma na suñu defee formation bu pare dañuy indi équipement yi indi matériel yi bàyyi ko ak yéen ngeen mën a continuer loolu nag dafa am lu muy laaj suñu bëggee produit yi ñu koy jaay ci Sénégal jaay ko ci bitim réew dafa am taxawaay boo xam ne moom la ñu war a am surtout yéen jigéen taxawaay bi mooy ci qualité produit bi taxawaay bi mooy ci régularité produit parce que soo amee marché bitim réew bëgg di ko jaay tout le temps faw ko produit bi di mën a nga koy mën a am saa su ne pour mën ko yot ñi nga xam ni ñoo koy ñoo koy jaay ñoo koy soxla loolu nag am ngeen base bi li ma gis fii tey wane na ne suñu tegee tuuti suñu loxo rek mu dem bu sore sore sore sore moo tax ma wax léegi seen parrain monsieur le ministre Abdou Bali wax ko directrice ONU Femmes soxlawu leen centre de formation professionnelle soxla ngeen centre de production semi industrielle boo tax ngeen di mën a liggéey au jour le jour employé ay nit ci ci préparation bi ci jaay parce que mbir mi du rek defar produit bu mucc ayib nii mais mbir mi mooy mën a defar produit bu mucc ayib mën ko jaay am ci koom mu dellusi ci askan bi parce que damay wax souvent tant que ñu ngi former jigéen ñi ak ndaw ñi ñuy defar produit yoo xam ni suñ ko jaayee du am weccit buñ ci am pour mën a doxal seen économie duñ fa toog duñ ko def te objectif bi. c'est de lutter contre l'inoccupation des femmes maanaam jigéen ñi toog ci kër yi rek loolu lañ bëgg loolu lañ bëgg a wàññi mooy que ñu am activité di liggéey bi ci jëriñu di ci am dara di yóbbu kër ga di ci faj seen aaju kon donc mun naa wax ne centre de production ngeen soxla Cheikh Abdou Bali wax na ko seen parrain merci beaucoup monsieur le parrain joxe mun a joxe pàcc pour ñu def ci parrain man mun naa jël fi engagement te dinaa ko yeggee monsieur le président waaye personnellement man lu ma ci man lu ma ci xam lu ma mën a jëli parce que ci nii laa doon yëngu ay jamono sama partenaire yu am dinaa leen dugal ci projet bi parce que maa ngi wax léegi directrice ONU Femmes te am nay jamono 2007 2008 ñu amoon yéene bu mel nii def projet bu mel nii ci dëkk bu ñuy wax Fanda ci Ziguinchor suñu borom dogalu ko parce que yeneen considération moo taxoon kon boog su ma dëkkee fii Njaaréem projet bi jege fii ma xam président la république solo si nga xam ne jox na ko Touba jox ko waa juróom sëñ Mountakha Bachir mënuma lu dul taxaw ci def ci suma kem kàntan nekk ndawam pour que loolu mën a nekk kon boog maa ngi jël fii engagement madame la directrice mën nga denc vaar bi ne dafay filmer pour que de ëllëgee mu génnee vaar bi parce que xam naa ne lii ngeen gis fi produit yi ma jënd dinaa ko jënd dinaa ci jot président la république war ko jigéenu Tuubaa bi nga xam ne ñu koy def day fekk si rek bëgg-bëggam ak yéene bi nga xam ni am na ko ci jigéenu Tuubaa ak ci ndawi Tuubaa kon boobu maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaar ci taxawaay bi parce que entreprise nag du xëy suba rek màgg ji tey mu sax tey nga jëriñoo tey mun la am fenn kon bokk nañ ko togg pas à benn ñaar ñett ba ba muy nekk une grande entreprise mu nekk une sot une entreprise industrielle fii ci Touba koo fi gis ci àdduna mu am produit boo xam ne ñu ngi koy kañ di ko tudd ci nii la démarré ñu comprendre que ne entrepreneuriat mooy tax ñu bëri ci yéen mën a liggéey ci biir entreprise boobu ñu bëri ci yéen mën a mën a mën a liggéey ci chaîne de valeur parce que li ngeen def nii ñi nga xam ne ñoo leen di jaay produit yi ñuy jaay bisaab ñiy jaay ñiy dem ci saabu ñuy jaay daqaar ak leneen ak leneen dañu war a bokk ci chaîne bi mais su ngeen paree defar dafa am ñoo xam ne ñooy ñooy ñooy yor wàllu jaay bi ñooñu tamit ci chaîne bi la ñu nekk kon boog war nañ mën a créer beaucoup d'emplois fii à Touba à travers votre expérience là kon boog maa ngi leen di féliciter gàcce ngalaama jigéen ñi Touba parce que man kat mun naa teg sama loxo ne ñaar fukki at ak juróom maa ngi wër Sénégal bi ay jigéen ñi ñuy formé ay ndaw waaye li ma gis wax dëgg yàlla ay la ñu mosuma ko gis kon félicitation je voudrais féliciter les femmes de Touba